salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi ñuy seetaan tey ñëw ak yéen seen beneen numéro bu découverte tey ñëw war a waxtaanee encore élevage war a waxtaanee yarum laadum tey ñëw fii ci parcelle war fee seet waxtaan wu yaatu boo xam ne kenn dootu ko présenté ci milieu élevage surtout moom mi nga xam ne mi ngi incarné jeunes yi ci wàllum élevage ñu koy wax Siré Diakité moom nga xam ni macha allah mi ngi bay waaram ci wàllum élevage surtout ci wàllu yarum laadum di ci jàppale jeunes yu bëri jeunes yi di ci gis seen bopp donc loolu tey yoon la ñu ñëw fii war a seq ak moom waxtaan wi aar ci lu jëm ci ci milieu bi ak amélioration bi ak nan la ko gisee ak ñu xam aussi euh, fan la war a jëmee élevage tey ci ñu jëm ku nekk yaa ngi ciy dox sa waar mais moom particulièrement mi ngi ciy dox waar bu mat incha allah xam naa ci kanam tuuti ñu waxtaanee ko kon ba ci kanam ñu dugg xool si la incha allah. comme ni ñu leen ko waxee woon ñu ngi nii kër Siré ñu ngi nii taxaw mu moom kenn dootu ko présenté. boo xam ne mi ngi bay waaram ci élevage nekk jeune boo xam ne bu dynamique boo xam ne mi ngi jàppale suñu morom yi ñun ñi nga xam ne ñu ngi soog dugg ci élevage mun naa ne ñu bàyyi la nga présenté wu ñu lay seetaan. waaw asalaamaaleykum euh, mbokki éleveurs yi asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna bi yëpp ñoo ngi ziar ñëpp di nuyu ci nekk ci turam ak santam. di la jaajëfal njaga ci invitation bi ngeen ñu invité ci Asfiyahi di la ñaanal yàlla aussi di ñaanal yàlla mbokk sénégalais yëpp di nuyu éleveurs yi en particulier di leen jaajëfal bu baax a baax di leen wax ngeen dal jàmm ci bergerie alhamdu euh, di di di machallah Masha'Allah, allah. ok. ndax même dara suñu frère ga wa lolou le am ñu gis ñu ngi découvrir berger bi uh-huh. wax élevage et partage lu lu sabab lolou tay élevage partage sama conception la ben idée le bu ma am depuis tout petit parce que pour man yëf yi dafa war a a yaatu dafa war a gën a neex xar yi dafa war a tas même bu dul laadum yi avant ma yaadum laadum mhm. loolu dama ko dama ko doon liggéey dama ko doon prôné ci koñ bi ak ñi nga xam ne ay mag la ñu woon peut-être ñoom laa fekkoon ñuy sàmm mhm. bon bi ma màggee nag euh, li demee venu ma ma gën ko élargir gën ko gën ko yaatal mhm. xam ni itam la laadum est typiquement sénégalais donc le mot partage bu ko waa sous-région bi déggee wala yenen ñi nga xamné sax ñi ci yenen continent buñ ko déggé dina faciliter sen accès. ci ñu ñëw jël luñu mom dina tax ñu suñu produit ñu tas ko fépp ci aduna bi donc c'est une communication dans c'est une belle communication bi ñu jàll. incha allah amour ci élevage fu mu waaw man de est-ce que est-ce que deret tooñu ma waaw deret ma tooñ la laa mën a wax et puis itam lu ma donn la te wolof léem na ni loo donn mu dëgër waaw yàlla dogal na ba ma dama xàmmee fekk kër gi ñuy sàmm sama maam amee woon ko muy sama wayjuru papa bu jigéen ma koy ñaanal suuf sedd ci kawam yàlla na dee di naf laayam aljanay firdaws si di këram moo ko amee woon ma gënoon koo bëgg nag amaana ci njabootam doon ko ci jàppale doon ci liggéey ak moom bon ba yàlla dogal rek lii dab ñëpp dab ko mooy mage doole ji néew waa kàttan gi mayetu ko xar yi daal di dal samay loxo boobu ba léegi nag fa tabaarakallaahu ma nekk ci di ko di ko doxal di ko woyal ba jonni yàlla tey alhamdulilah rabbil alamin léegi yow laadum bi comment ça doon nga yar noonu noonu rek mais laadum en tant que tel lu la ci dugal ak ak nan nga ci duggee. waaw euh, chaque jour ma wolof dafa léeb ne ku yokkul yaa wàññi. Hmm. te man dama gëm ni li ma fekk ci kër gi war naa ko jëlee niveau A yóbbu ko niveau B. Hmm. moo tax bi ma ñëwee comme man dama xawoon a sob temps xale. il m'arrivait ma jugee fii sama kër ma ak sama jeune frère bi dox ba Seras dem xoole ay xar rek ñibbisi ci lañ dégg nag ñu doon wax naan li xaru laadum la et tout donc euh, ay xale rek xale bëgg-bëggam ñu koy gëstu fii si Parcelles Assainies bi ñu dëkk ñu xam ci ay góor yu baax yoo xam ne euh, ndem si yàlla Pape Abdoulaye Diouf ñu ko doon wax Patéo mhm. mu xamal ma ci lu bari ah amoon na éleveurs yu mag yu fi nekk Parcelles Assainies ndem si yàlla comme Pa Mbourgou Fall moom itam yàlla na ni yàlla yërëm Pa Cheikhou Niang moom mi ngi fi macha allah yàlla na fi yàgg waaw Pa Bousso Pa Beydi Diaw macha allah bari nañ aussi itam sama maam après ma daan dégg turam muy Haj Mansour Mbodj moom nga xam ne fa tabaarakallaahu mm. yàlla na yàlla ñor di fanam xam naa du ñàkk après ñu wax ci moom euh, ñu mel noonu daal affaire bi motivé ñuy dem seen kër yi di visiter amour bi dugg bon yàlla dogal à cette époque euh, peut-être les moyens n'étaient pas là pour nous commencer. Mhm. mais bi mais ba 2007 boobu ma commencé nekk majeur et tout ma xàmmee xam ni lii sama amour la mais exigence la léegi ma faire ko. Mhm. ci insisté à ce que au niveau de mes parents ma jéem a commencé am ci la bi ci laa commencé laadum bi éliminer race locale bi fi nekkoon carrément continuer faire faire laadum kese. ok qui ci ci ce relation pas Paa Massoum ci la ñuy

papa Mansour nag moom kooku day am wàllam à part ndax kooku naam xar yee ñu boole woon démb ak barki dem mais moom woyjur la sëriñ la xarit la. Mhm. comme moom ni mu koy waxee naan siré sama genn wàll la kooku du ñaan rek laay sàkku ñu ñaanal ma ko. waaw léegi nag en général éleveurs yi dañ may tooñee naan ma amoo xaritu xale <laughs> man bugguma sax xaritu jeune chaque jour ma tooñee leen ko man paa ñooy sama xarit ah. <laughs> ñoom bon li ma li ma gën a booleeg ñoom mooy damay sàkku chaque jour di ci xale yi ci ñun Nous ñu liggéey affaire ba mu toll ba ñun ñu ku man mhm. ak sax ak nga peut-être abou ñoo fi jitu aboukan fekk nañ ku mel ni Mansour ak ndem si yàlla ñoom vieux Sadi si bu nekkoon Thiès ak ñeneen ak ñeneen ñu liggéey ci liggéey bu am solo mhm. ñun ñoo dañu mhm. donc amel nañ leen conseil waaw looloo tax peut-être euh, ma xaw a ma xaw a xarit ak mag ñi comme ni ma ko gars yi di toll. kon kon yow mun nañ xale mag nga yow xale mag nga mun nañ xool xool li fi nekk wala. waaw bismillah mën nañ xool quelques box mën nañ commencé xaaral ma. ubbil la comme teraas bi mu gën a yaatu. waaw mu ubbil la box bu. d'accord génn nga xool bismillah.

Euh, Cheikh Anta. Mhm. jóge woon ci Cheikh Fall di doomu Addo ak Diena. moom laa tegoon sama benn femelle bu mag bu ñu wax yaa ma leen gënal. Mhm. mu euh, jur saa xewar. waaw moomu nag laa tegee ci benn doomu kaar-kaar bu jógee sama maam Mansour Mbodj toujours. Mhm. Euh, Koddu Samba. ñu jur Jéelaani. moom am na sax ñaari magam yu fi nekk. Ah waaw bu kenn ki ñoo bokk ndey ak baay mooy Muntis. waaw waaw ki ci des mooy. mooy booy bawal ñoom ñoo bokk benn yaay seen yaay mi ngi fi

d' accord ak yeneen femelles yi fi nekk tey ñoom ñëpp ñoo bokk même sang bi la am ay. waaw sang bi sang bi sang bi xaw na yaatu léegi xam saaxeur moom nga xam ne moo nekkoon sama euh, sama géniteur yi xam naa ni ci yi ma gënoon sopp la bokk. Uh-huh. yàlla moo dogal fan yi gàtt léegi xam naa damay def vite fait. ma euh, génnee doomu saaxeur ñu daje fi Ibrahima li ñu dem. waaw voilà bisimilah kaay. bon comme ça ma wala produit saa saaxeur yi kese d' Mariama la tuddu Mariama. mom mo jur bobu di génn bopp mom doomu sa xewor la. mom doomu sa xewor la. doomu sa xewor la bi Jalika la tuddu mom itam doomu sa xewor la. kon ñom ñee ñoo bokk papa. ñom ñett ñoom ñett ñi amna benen bu may gënné Fatma. Mhm. ba légui mom itam doomu sa xewor la. mu gënné ko. gis wa li production sa xewor donc. Euh, ah bu mel ni gàtt fan rek laa koy jooyal waaye gëm naa ne bu doon fan. Ah. Euh, dina baax empruntam ci histoire malgré li fan wi gàtt moom macha allah bàyyi na ko ay champion comme Diela ak Louga xanaa ñaan yàlla rek ñoom ñu liggéey ñu mottali seen liggéeyu seen liggéeyu bàyyi.

je pense que na turandoo. waaw wuyu na turam wuyu na turam macha allah. macha moom ñaata porte la benn yoon la jur mu ngi mu ngi toll nii ci deuxième portem ah, bon donc xale la ci ci âge. ban la couragé. nii nii euh, Sidi moo ko teg. ok Sidi Anta moo ko teg. kon Jëla Jëlaani kon si am na yu mu croisé. yi mu fi jotoon am dañoo dañoo dem mais nii nii am na xar yu mu tëb. ok macha allah. léegi femelle bi. waaw bii aussi sama ben xarit euh, buñu wax Momo Fall momako jox. waaw surtout surtout grand ran la. parce que dom ah, dom mbaarig la. ok waaw moom itam tëng la musul jur. waaw ah, waaw mais léegi je pense mi ci 15 mois. Hmm. ëmb na nak ba am 2 mois et demi je pense 3 mois. ah oui croisé ban la moom. moom monument. monument monument la ko bàyyi. macha allah. baa duma ko yóbbaale samay def. ah aywa bismillah <laughs> lu war a mën a nekk la. <laughs> macha allah vraiment lii moom rafet na trop macha allah. kii abi la tudd. kii sama abi abi sama maal bi fi nekkoon à l'époque 77. waaw nekkoon doomu Zélatan papaam ci man la juddoo woon yaayam aussi ci man la juddoo woon. jamono jii laa ko joxe yàggul dara yaay doomu Saoudien la. ok Saoudien yoroon naa fi en 2014 2015. ok waaw. saoudien surtout Birahim la moo jur yaay ji ma teg ko ci 77 mu jur abi ak seex bi waaw moo koy fi mu ne nii moom vraiment famille yi macha allah waaw ah, vaccine kii aussi benn portée la am hmm. doomu kocc la doomu la roi man euh, moom éleveurs yi xam nañ maag roi Bachir mooy sama xar. mooy sa xar waaw waaw. roi Bachir moom moom moo taawloo bi. bii waaw moo taawloo bi bii moo ko. Sidante mooy papa. ci ban far yi la tudd doom doomu champion wala le champion de la décennie sax laa wax. Ah. roi Bachir moo ko jur roi Bachir doomu Saalum Saalum la. Ah. Euh, mooy mooy papa doomu Saliou kon roi Bachir ak Gaynde. waaw ñoo ñoo ñoo bokk pap ñoo bokk pap moo leen jur. moo leen jur Saloum Saloum monstre monstre Algor moo ko jur. Algor Birahim. Mhm. Euh, Birahim Sarr bu ndaw saar bu ndaw saar bu mag. ok si loolu sax maa ngi doon bëgg a ñëw. ci jamono yi ñu toll nii ak jamono yu njëkk yi. waaw yan maal ñoo la gën a marqué maal yi nga xam ne leer na ne ci temps boobu ñoo ci temps yi ban maal moo la ci gën a marqué. bu dee maalu démb yi peut-être il fi nekk ay année 2009 8 9 10 7. waaw jamono jooju blanc pour moom il était le meilleur. Hmm. waaw bon, ñu fi jógee itam macha allah bu son mbóoj. c'est bu exceptionnel. machallah mon la laa gisoon ci xar bu musique d'accord waaw bu tout doxaatee tuuti nag am ay champion mais bari yu fi dox booy séeréer champion bu mag la woon fi barki démb yo xamné sama nijaay abukan mo len mom ak yeneen a ah, on peut en citer d'autres xar yi bari nañ mais at yu néew yi ñu passé mom xar bi gën a marqué mooy woyu papay kii moy jinte moy Roi Bachir ba paré mu nekkon ci loxo éleveur bu yewen bu mm. baax mu ñukoy koy ziar de passage di ko ñaanal yalla mm. yalla doli man mënam ak kattanam mer ko wër ak fan wu gudd ñu mm. wax euh, Lamine Diop muy propriétaire bergerie Maktoum ferme Maktoum waaw moom moomoom roi Bachir mais roi Bachir chaque jour nit ñi laaj ma ndax maa ko moomoon tellement daf koy yéwénaloon te du ci man kese ah. euh, ci éleveur yëpp la yaatu woon nee naa ko moom rek laa gis am maal boo xam ne ñëpp nangu nañ ni champion bi waxuma la nga maye tëb femelle yi fekk si ko mais maal bi saa yu ñu xëyee mu fanaani benn kër en fait dafa doon able maal bi loolu yombul ku ne am nga fi maalu champion sax macha allah di ko partagé mais femelle yi ñooy fekk mais moom maal bi lay jël baaxee ko mbokk éleveur loolu te aussi c'est à saluer. Mhm. parce que exemple la ci ñun jël ñi nga xam ne chaque jour damay waa woote ni dañu war a booloo. parce que mhm. lii ñu bokk buñ ko liggéeyul. buñ ko développé wul rek euh, kenn du ñu ko defal. te boo mbooloo boobu rek. moom mooy yoon bi. Mhm. pour euh, yëf yi gën a am doole. ba ñu mën a am baat sunu réew. su nu amee baat suñu réew nag suba gannaaw suba mun nañu am baat bitim réew am ko feneen ak feneen. mais buñ ko deful rek ku nekk euh, ñuy liggéey parallèlement day xaw a du ma ne du ñu dem mais day xaw a yéex. day day am dispersion voilà exactement day am dispersion. waaw mag ñi nag def nañ ci liggéey bu bu rafet. ñun ndaw ñi moom sama classe yi ñoo fi des xanaa ñaan yàlla rek mu dimbalee ñu xool gu yaatu ba nga xam ne liñ ci bëgg te am yéene bi dinañ ko def ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. amaale xool xar yi ah, waaw waaw mën nañ xoolaale peut-être yaa waaw bon yii yii moom loowu loowu tëng bi la loobu tëng yi ñoom mën nga cee non balaa tënk yi rek sa relation ak jeunes yi ñëwaat. waaw sama relation ak jeunes yi kii Ndiaga tamit bon loolu amul dara de particulier xanaa rek suñu sañoon yëf yi yaatu. te comme xale yi gis naa ni sama maas gi bëgg nañ mais des fois les moyens font te loolu itam jaar naa ci. ndax boo delloo fàtte xaju boo delloo tuuti ci ginnaaw amana buggoon naa ci yenn maal wala yenn ki yalla wërsëgalu ma woon ah. donc suma ma gisee yi bëgg samay mal te ñuy ay jeune peut-être les moyens sont pas là damay jéem a élargir rek ñepp am ko parce que ku nekk yok ngay ki mhm. bon ñi fi ñëw itam peut-être dañ yaakar ni li fi nekk mëna leen yok mhm. motax tax euh, ñaare bëgguma yaakar kenn du fi tassé loolu lay ñaan yalla ah. donc ku ñëw le maximum de partage que je peux faire dina ko def ak yow y a pas de problème inshallah allah. macha allah loolu ci loolu ñu la ci remercier au nom de. jeunes yëpp yi nga xam dañoo bëgg élevage vraiment ñu ngi la ciy sori bu baax. tey femelle yii ma gis nii ay tëng la wala. yi yi yi ay tëng lañu. Mhm. waaw je pense que ñu ngi ci ñaata ay mois benn rek moo ci am portée ñu ngi ci entre euh, parce que man à 4 mois laay feral 3 mois et demi. Mhm. ñu ngi ci entre. 4 euh, mois ba 15 mois parce que am na yu ci jot a tëbu mais bu ma la bàyyi foofu ba ci box tëng yi ba nga tëbu mun naa la fa bàyyi mais boo xasee jur rek moom dangay dem ci ci box box famille ok mais daam yoo ci génne wala yëpp ngay téye wala comment ça ah, bëgg naa ci liggéey de fu mel ni doyalu gu ma ci dama bëgg am yeneen i box box ba nga xam ne bergerie alhamdu dana gën a yaatu waaw d'accord euh, ba nga xam ne des fois demande bi dafi nekk te hmm. offre bi du fi nekk parce que gars yi man maa leen gën a bëgg a xar yi donc léegi bu yàlla defee femelle yi gën a yokk hmm. demande bi bu bu fi nekkee dinañ mën a servir ñëpp te loolu la ñuy ñaan incha allah mais nga foog ni fii est espace bi tey may na loolu waaw mayetuma ko te génn moom wala yu gën mu gën a yaatu. Uh-huh. obligation la fi mu toll nii. boobu ba léegi nag ñu ngi ci xanaa ngeen ñaanal ñu ci yàlla rek yàlla doolu ñu cee dimbali. mais incha allahu taala ci lu yàggul dara. Hmm. amaana di nga ñëw fekk ma ci beneen barab. bu dul te looy ñaan loolu laay ñaan yàlla ko yàlla def incha allah. incha allah bu ko defee yéene gi ñu am ci élevage. Hmm. ñu dox ci ay jéego rek. te ñaan yàlla mottali ko. la fois exporté laadum bi ci fu mel ni SIA loolu ñu ci la fois passée loolu aussi lan nga mën a lancer autorités yi pour ñu mën ci jàppale pour xaru laadum tey prochaine édition SIA bi dem exposé ku ci mel ni yow ku ci mel ni Aboukan ku ci mel ni ñeneen ak ñeneen ñu mën a yóbbu ay xar vraiment exposer le bouton laadum nga xam ne c'est typiquement sénégalais exactement ci salon de l'air. xamtuloon lin ku mën a dem rek waaw ci ñun sagu Sénégal waaw mhm. mu nekk Siré nekk président Abou ak mais man sama combat eh, dama du ma jóg ci di ko wax mooy nan la ñuy def balaa du bi génn bi sous région bi moom maa ngi def li ma mën def yàlla dimbali na ma Burkina maa fa njëkk a yóbbu laa dugg Côte d'Ivoire alhamdulilah yàlla suturaal na ma si ko njëkk a yóbbu laa bokk mm-hmm. eh, Gambie bi léegi xar yaa ngi fa macha allah Malien itam bon mën naa ne je suis l'un des éleveurs sénégalais yi gën a jaxasoog ñoom parce que maa ngi leen jaay ñoom sax samay mbokk lañ uh-huh. ah maar day taal yàlla teer bu Sénégal tàkk kon man damay ñibbi dëkkuma <laughs> fi dëkkoo waaw mais mais insha allah Sénégal moom du ma sa tàkk ndax suñu ñu baax ñi nañ ci ah macha allah léegi euh, bon loolu la buñ ci jógee sous région bi ñun mën nañ ko tas mais pour mu génn nag dem ci continent yi fu mel ni Europe feneen bu foofu foofu loolu moom foog loxo autorité yu jot ci loxo nguur gi bu fekk seen loxo dugg ci bu baax a baax baax est-ce que yéen ci démarche waaw euh, comme man nekkuma nag ci yenn bureau yi mais xam naa ni ku mel ni président Abdou Kane ak ñi mu àndal ak ñëpp ñuy liggéey élevage mhm. président Omar Sow bu Renades euh, FENAFO mi nga xam ne mooy fédération association yi mhm. euh, may gërëm aussi sama sama frère

bon xam naa conditions yi muy laaj fornage yooyu béy peut-être problème de maladie yi la ñuy wax yooyu mais ñun suñu xar yi feebaruñu pourquoi ne pas les mettre en quarantaine ñu jël leen peut-être parquer leen je sais pas mari fële gendarmerie wala kii ñu suivre leen utal leen ay voiture spécial pendant deux mois boo xam ne nga xam ne xar yi ñu Israël voilà mi ngi noonu xar yi nga xam ne ñoom la ñuy seppi rek ni ñoom ñooy war a dem foire ba ñu bàyyi leen fa ñu hmm. traité leen ñu am seen i document ñu suivre leen bu foire bi jotee ñu jëlee leen foofu directement ñu dem waaw te loolu xam naa ne bis bu fa laadum duggee moom loxo dina dar gémmi parce que dem naa fa gis naa tubaab bi ni ñuy apprécier liggéeyu Euh, gars yi gars yi ñooñu jiitu ci nag waaye xar néew ma kuñ ci kenn jiitu wuñ ci mais man gisaguma te nag jot naa dox nag dem ci ay dëkki dëkk mhm. gars yi ñu ngi def liggéey bu am solo waaye xar li ci yàlla dogal sénégalais yi mun ko bëriwul ko ko ñu ko mën a loolu ñu ciy ñaax autorité yi bu baax vraiment ñu jàppale ñu ci loolu xar yi vraiment laadum espèce la boo xam ni c'est typiquement sénégalais et war nañ koo exporter dafa jot pour muy dem ci salon yu mag yi ñu mel ni Siré ñu mel ni Aboukan ñu génn exporté exporté laadum bi ci loolu Siré ci li ma doon bëgg a ñëw sànq mooy foire yi fi jot a am bu mel ni rëyit bi ak bi amoon Pikine tey évolution foire xar yi noo ko gisee yu wane ne beneen niveau lay nekk quoi. waaw foire yi moom léegi lépp high level. bu njëkk boo demoon ci foire ñaari box ñett. Hmm. mais léegi da ngay def box yëpp. parce que yi kenn bàyyeetu ko sa moroom hmm. sama classe gi pareegul sax te ñemewuñu gisoo li ñuy def foire sama classe gi bariwul <laughs> eh? waaw eh, eh, boo demee sa xol dafay seet. Hmm. box boo taxaw rek man démb ak barki démb. bala nga am xar bu baax yàlla dogalu na kër Hadj Mansour Mbodj nga fay ngay dem bañ fa duggee tuuti ñu ñu bari def ci liggéey ju am solo ku mel ni Lamine Diop moom may wax président Abou Kane ak ñeneen bon mais léegi nag moom dafa tas laadum bi man fu nekk laa mën a jëndee xar fu nekk laa mën a jëndee géniteur mhm. te loolu dara wanewul dara waralu ko lu liggéey bu am solo lu ci gaa yi def donc foire yi léegi boo demee moom sa xol day seet niveau bi dafa kawe trop trop te lii lañ bëggoon aussi waaw ñëpp góorgóorlu ba nga xam ni affaire bi dañ koy yóbbu xam ne baar bi day kawe macha allah macha allah léegi histoire wu tey parce que tey sa xar yi mun naa ne bu ñu defee buzz ci toile bi si chaise bi ñuy taxaw di photo la loolu moom xam naa ne bokk na ci lu mu ëpp buzz bi mais loolu tey idée boobu nu mu la indee nu mu nan la la ñëwee ba nga xar yi waaw yàgg daa ko gis mais wax dëgg yàlla Mm-hmm. sama rakk yi ñoo ko commencé am na ak sama jeune frère bu ñuy wax aali mm-hmm. mu ndaw moom gis naa mu def ko ak am naa beneen. ci sama frère yi ku ñu wax Birane ah. moom mu yàgg ma jàppale ci xar yi fu mu toll nii moom mooy gérer fee sama opération tabaski bi ah. moom itam gis naa moom laa njëkk gis ñu ko ci teg moom ma ne li xale yi def man ma jëm mu ko mais ma jëm ko foofu yàlla dogal nag xar buñ ko jàngal rek automatiquement mu mën ko ba léegi sax salange jëlaan lañ ko tuddee waaw waaw ñëpp a ngi koy def ah léegi foo dem gars yi ngi wut chaise di yëkkati xar yi ñuy teg tànk alhamdulilah challenge bi moo nekk nii quoi. challenge bi waaw jéelaan eh? lan moo lan moo tax. waaw mais li ñu koy def nii dafa neex. waaw ko defoon tamit sax wax dëgg yàlla nga taxaw bon. xar moom euh, damay faral naan ci jur yi gën a fidèle la bokk. li nga def ci moom rek lay won waaw moom mu ngi noonu gis nga moom boo. boo kiyee mu mu yéeg wane boppam. Ah. léegi nag macha allah éleveurs yëpp ñi ngi ci. mais nag bon droit d'auteur nag parce que challenge bi jéelaan la macha allah. gars yi gars yi fii lañ ko gisee ah. awul bu gars yi dina leen wax ñu ci waaw. mu mel ne aussi ku fi ñëw rek loolu ngay da ngay bëgg di photo. waaw daal di voilà loolu moom moom moom nee naa ko moom wax dëgg du li ma ko moom mais. Oh. bu mën naa ko nommer le mouton le plus populaire. l' international sax la ko sama gars yi woowee. jamono jële dem naa fi Côte d'Ivoire. Hmm. gaje gis ak ay éleveur teguma samay saak sax ñu ne ma mais ana jëlaat ma ne waaw mais <laughs> xanaa ngeen ngeen dalal ma ba pare. en tout cas mais Siré nag ñu ñëw ci li xew fan da nga foqati gaynde xam foqati laa ko mën a tuddee ci lum ni ko laaj mais loolu foqati boobu explique noonu comment nu mu ko demee noonu. loolu foqati googu. ba pare ñun ba bon man ce qui ma ce qui ma trotte mooy. Mhm. ce qui ma trotte mooy boo yoree maal bu mel ni Jeylaani maal bu mel ni monument Sidi Anta. multis macha allah macha allah ñoom ñëpp. Mhm. ah léegi nga bëgg ñëw teg si gaynde quest lan ngay lan ngay wut. waaw loolu euh, chaque jour damay faral di wax naan. bergerie alhamdu yàlla dogal na séeréer moo nekk ci bopp bi mais léegi dafa yaatu macha allah trop te accompagnant yi dañ bari su ma limee juum ki ci jiitu sax man ma ne mooy ki toog ci néegam wala toog ci siyaadam ba mu wax ci xolam ne allahumma yàlla na yàlla defal biir yàlla xam du jàmm kooku amuñu fayam ñeneen ñi ci nag ñu ngi ciy jàpp de tous les côtés sama frère yaa ngi fii sama maam Mansour Mbodj mi ngi fii parents yaa ngi fii ah. sama frère Mokhtar Amadou Mokhtar Gueye mi ngi fii sama papa Mamour Gueye mi ngi fii ak keneen ak keneen ah mën nañ lim <laughs> ku lim juum ah. mm-hmm. mais ñëpp ci biir yàlla xam ne bokk ah. léegi nag ambition yi day bari attente bi aussi mm-hmm. waaw day bari am na ku ma ko laaj démb ma ne ko su ma sàmmatul sax ngir sama bopp ma sàmm ngir yéen ñu bëgg te loolu de dafa war a tax def yenn sacrifice yi loolu rek a tax ñu reyante ah. waaw ba actuellement moom yàlla dogal na gaynde c'est ma mal le plus cher de l'histoire du Ladoum euh, dina ñëw xam naa ci fan néew ah. waaye décroché nañ ko mi ngi sax ci ci Touba ci ah. sunu papa sunu xarit hmm. sunu nijaay sëñ Moustapha Mbacké mi nga xam ne euh, buñ ci jotee moom mu jot si ndax alhamdoog bergerie Tanwir itam benn la euh, gannaaw yàlla taxawaayam la ndax bu bu doon doole kese gëm naa duñ ci gaaw a jot waaw mais ay relation peut moo ñu may ba duñ ñu ko laay yombalal ñu ko ñu itam ñu ñu jot si te fas yéene ci liggéey lu am am solo te ñaan yàlla itam mu doon barke ak sutura ko xam ne njëriñal élevage yëpp yëpp yëpp lay doon incha allah loolu rek lañ ci jublu te yàlla mën na ko yàlla ñu ko defal barke nabi alayhi salaam barke mag ñu baax ñu incha allahu taala incha allah léegi prix bi mun mun nañ ci wax léegi comme c'est le mois le plus cher non wax ñu rek ñu am exclusivité fii fii ci Asfiya yi non non non nga wax prix bi prix gaynde nan la wax maa ngi dégg ay cinquante millions yu ma xam est ce que loolu bu ko waaye loolu loolu xam nga loolu ñuy wax ci élevage wàllum naan xar jarul un million deux millions waaw non xar mun na jarul ne xar sa xar xar waxuma la cinquante millions waaye cent millions deux cent millions sax jombul waaw parce que fi mu ñu toll ak liggéey gu bu am solo bi ñu ciy def. loolu moom sa laajoon nañ ma question boobu man leen ñi xamul ñooy wax naan xar mënut a jar mais xar waxuma la cinquante mais sa mën na koo jar. prix Gaye prix nag moom. soxlawu ko ndax sama maam euh, Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Cheikh Al Maktoum daan na wax naan. buñ la gémmiñoo mun nañ laa bindal téere mu dañ. waaye boo gémmiñoo sa bopp nag gëf <laughs> kenn du la mën a ñaanal.

dañuy dem dara ba ñu xool. waaw waaw opération tabaski boobu tam dina am solo trop. waaw parce que chaque jour ma faral di wax naan éleveurs yi nañuy wàcc di buufonte. Mhm. ñu di def opération tabaski. bu dul dara nga servir ñi nga bokkal kon parce que autosuffisance en mouton la ñuy wax. milliards yi ñu fiy jëlee Sénégal di ko génnee di dem sous région bi di ko jënd ay xar. Uh-huh. naam yéene naa leen ko waaye. gën a jege gën a yeey suñu bopp laa ko gën a yéene ah donc ñun éleveur u laadumit naam amal nañ askan bi njariñ waaye mën nañ koo gën a am te nag mooy fexe ba le lam lambda itam gis boppam suñu liggéey te gis bopp boobu li ci gën a am solo mooy tabaski jot ñu xam ne c'est la fête mu mouton moom mu fexe am ci xar yu baax yi moom itam tabaski te mu dikkee ko à un coût bu passé nag bu ñu jaayante suñu biir ñu jaayante suñu biir li jaay waaye bu tabaski jotee ñun nañ fexe yaatal jar na am na benn année sama jeune mal yu fi yoroon di xar manqué yëpp laa joxe waaw loolu nag euh, du xaw ma nu ma ko mën a expliquer mais j'invite les éleveurs aussi ñun ñi itam Dakar kenn dëkk fi bay itam sa weewu taal ku ci nekk fa fa nga cosaanoo ولكن يجب ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك mais ñun ñooy état. ñun itam ñoo ëpp état doole. bon jarul sori ku ci nekk fa nga cosaanoo fa nga bokk mën nga ko defee foofu rek. Ah, kon nag may jox benn may jox ma Jëlaani ma yóbbu ko Dagana. après mu mais mais mais Jëlaani waa ah. Bakel déggoo mooy man Bakel laa dëkk. Ah, fële ca ca Sénégal oriental waaw <laughs> <laughs> vraiment émission bi. Euh. ñu ñëw dem léegi découvrir euh, opération tabaski bi Siré di def. fële Grand Dakar. kon ba ci kanam daanaka jeex na mais ñu dem xool allah bi légui léegi sujet yaa nekk ni mu mel yow nekkoo éleveur laadum rek boo xam day def ci kër yi. yaa ngi def opération tabaski. Euh, comment ça se passe opération waaw ma ngi ziarat mbokki mbokki éleveur yépp comme ni ma ko waxee tantôt. ñëw nañ nag fii sama euh, bërëbu explosion sama daral opération tabaski. ñu ngi fii zone A. Euh, sorewuñu dara cinéma El Mansour bi. di wax entre parenthèse defaale tuuti publicité ku bëgg xar bu baax rek te yomb aussi askan bi ñëpp lañ fi nekkal bergerie alhamdu mi ngi fi pour yéen waaw fa tabaarakallaahu sànq wax naa ko ma gën ko yaatal rek mu opération tabaski euh, wareefu bépp éleveur la parce que dana tax askan wi gis seen bopp ci sunu liggéey surtout éleveur laadum yi en personne mm-hmm. parce que laadum màggam dafa gaaw te chaque jour ma wax ko xar jombul tabaski ndax euh, moo ñu wuutu ñun doomu aadama lu yeneen ci yàlla Ismaayil ci suñu maam Ibrahima alayhi salaam mhm. loolu kenn mënul am lu ko sut donc xar à la base tabaski moo ko tax a jóg mhm. donc du rëy ba du wala du toll benn dayo ba jomb tabaski loolu nag yàlla moo ci def beneen beneen beneen sirru ba ñun ñu nekk ci di ci liggéey li ñu ciy liggéey. mais xar xar xar daal tabaski mooy mooy mooy mooy wareefam. donc ñu ñuy ñaax éleveurs yi pour ñu gën a jublu ci loolu. liggéey ci loo xam ne ku bëgg suba gannaaw suba euh, autosuffisance en mouton bii ñuy woote surtout ñun fii lañ ko war a jëkkee ñun éleveur laa ñun ñoo war a jàppale état bi ci loolu. Mm-hmm. état bi itam dellu jàppale ñu ci. surtout ci sécurité ku mel man bëgg na liggéey ci opération tabaski mëno ko def ndakaaru dafa xat espace amu fi foog nga génn bo génné itam ragal nga nit ñi attaqué la jëm na ko doxul chaque jour ñu gis attaque ci bergerie donc sécurité bobu état bi na ci xalaat bu baax dooluñ ci dimbalé suñu ci dimbalé gëm na né éleveur yépp am nañ ambition bi

suñu économie gën a gën a dëgër. dëgg la waaw maa ngi par rapport ak fi ngeen nekk nii ak ñi gis nañ ni fii ay kër ñoo ko wër est que amul benn cohabitation bi di jur parfois yenn ñàkk déggoo ci yenn yi. waaw waaw xarit leen déranger yooyu. nekk beeg waaw waaw wax naa ko keroog maa ngi leen di gërëm ñoom amuñu seen fay lu ëpp fukki at ñuy ñëw di leen fi fekk waaye nag yàlla dimbali nañu bo ba légui entente bu rafet lañu am ah ça yu ñëwee dinañ exposé kaf ak ñoom foog ñoom dugg seen kër yi di utiliser seen i toilette di di di di def leneen ak leneen lu dul noonu fa tabaarakallaahu di ñuy rafetlu seen taxawaay ci ñun bu baax bu weesoo yi tamit yalla def noonu une famille garde relation bi opération tabaski rek ñun ñom bu passé dañuy dañuy joko ci téléphone bék lu nekk ah zone bi wax ak yalla yaatal nañ ñu fi mën naa ne am nañ fi fukki at yu topp. Ah, te macha allah boobu ba léegi yàlla dimbali nañ ñu defal nañ ñu alhamdulilah. léegi fii yan façon catégorie xar ñoo fi nekk ñu dugg xool daral bi. waaw daral bi catégorie ban moo fi nekk bii lu muy jar par exemple. macha allah bii catégorie 400 la 350. 400 c'est waaw waaw non non baax na bii xaru nouveau marié yi la comme sunu caméraman bu ñaawal bi Moussa <laughs> waaw. waaw du bii Moussa lañ koy jox waaw bii léegi xaru xaru ministre yeeg xalif généraux yeeg. ñëpp ñu fi waaw dëgg ah, ak xaru célibataire yi. xam naa yaay bi tam ci catégorie bu mag bi la bopp catégorie sept cent huit cent ah. Ah. ay ay xar yu mag macha allah. macha allah bien nourri def nañ sélection bu baax. mel sélection ay xaru foire ñoo fi nekk. voilà ay xaru foire mais fa lañ jëm aussi foog xar yi ñu ci consommer dama naan gars yi laadum yi dëgg la. Ah. mouton de prestige la mais nañ ci consommer aussi. Ah. parce que laadum màggam ni mu gaawee. Ah. ak euh, ni cher ak loolu. war nañ dem ba di utiliser suñu laadum yi ci loolu bii moom waaw bii moom bii moom nañ ko yóbbul xarit général. waaw bii moom moom moom bii xarit général la. macha allah <laughs> hein, titan la tudd. titan moom yaayam sama bi wax chef la chef d'état bu jugee Pa papam nag Pa Mansour mau leen jox waaw Ben benn rek benn la benn kër gi la Siré allah kër gi la kër gi la mais lan mooy sa dernier lan ngay par exemple lan ngay ñaax ya, lan ah. lan ban ban message nggak boleh boole ni lancé tey allah chaque karena waktu waxati mooy li fi mag ñi liggéey bàyyi ba ñu koy jox wala di ko jox ñi nga xam ne ñooy juutu tuuti dañ ko wodd ba mu rafet donc ñun yàlla bu puso gi réer suñuy loxo euh, te loolu li koy waral mooy nangoo liggéey ak mànkoo déggoo doon benn bu ko defee ñuy xàccandoo di dóorandoo lu ñu mën a bëgg waxuma la ci élevage bi rek waaye boobaa lu ñu bëgg ci réew mi mu sotti suñu loxo kon yàlla na ko yàlla def waaw di ñaax sama mbokk jeunes yëpp ñu gën a góorgóorlu xam ne lii liggéey la mhm. waaw comme liggéey yëpp mu ci kenn am benn complexe man am naa amoon naa wala bëggoon naa am beneen métier mbaa ma am ko sa waaye boo ma laaj dama naan éleveur les gens sont très très fiers waaw parce que boo demee boo génnee tuuti dem Europe ba ma demee gis éleveurs yi nañ ci leen joxe gëdd ak nu ñu kiiwee ñun fii boo ne nit éleveur la sax dalay xoolaat ñun ñoo mën a valoriser li ñu yor xar yii duñu xaru caaxaan xar di jar 50 millions loolu loolu ah loolu loolu fa tabaarakallaahu ah waaw mi ngi noonu nañ gëm te gën a liggéey beneen bi mooy xanaa di leen jaajëfal jaga uh, waa Asfiyahi yi yëpp leen ñaanal jàmm ak sutura ñaan barket dugg ci liggéey bi ba yàlla ful ko ñu doon ay télé ak yeneen yeneen yu kawe suñu njort ñu ñëpp di ñaanal réew mi jàmm ak sutura su yaatu di ñaanal suñu mag ñi ngan ko réew mi ci ñaan en l'occurrence suñu ñëpp macha allah waaye suñu xalif généraux yi sëñ Mountakha Mbacké mi fi suñu maam Cheikh Serigne Touba Serigne Mbaye Sy Mansour Cheikh Al Khalifa mi fii sunu maam El Hadj Malick ah, ah Seydina Abdoulaye Thiaw ak ñeneen ak ñeneen mi nga xam ne moom tey moom ak ci xalifa mm-hmm. Sénégal yëpp ah xalifatul muslimin sëñ Abdoulaye Thiaw xalifa Laayeen yi ah. ak ñëpp sama maam Abdoulaye Diagne Kang ñu koy ñaanal fan wu gudd ah, ah di gërëm woyjur yi di gërëm am di jàmm yi di gërëm éleveurs yëpp di gërëm particulièrement soppee bergerie Alhamdoulilah waaw wax naa ko sànq ñi toog seen si sijaar wala seen xel wér rek ne yàlla na yàlla defal bergerie Alhamdoulilah jàmm ñooñu ñoo moom bergerie bi ñooñu ci ëppale fuuf ñoo ngi leen di gërëm amuñu seen fay amuñu fayu sénégalais yi mm-hmm. waaw ah, di ñaanal ñëpp yàlla def ci jàmm wasaare ko ci réew mi ñaan yàlla itam tabaski bi yàlla def ci jàmm xar am yaatu ah ñëpp jot ci te mu bañ a jafe kenn yàlla wërsëgal ñëpp waaw incha allah ñun daal ñi ngi fi pour askan wi askan wee ñu taxal euh, moo ñu ñor sunu réew moo ñu ñor waaw dañu dañu def lu ñu mën rek ba fu ko yàlla yemale ñaan nag mu doon une continuité waaw ñun itam comme ñun ci loxo way juru lañ ko jëlee ñaan yàlla ñun itam rakk yeeg doom yi jëlee ko suñuy loxo mu gën a kawe yàlla dañ ko yàlla def ci barke mag ñu baax ñëpp barke Seydina Mohamed alayhi salaam ñu ngi ziar mbokk yëpp fa tabarakallahu di ko di leen kontaane di leen jaajëfal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. donc mbokk yi li moo nekkoon seen émission découverte tey ñu ñëwoon am mbégte loolu dalal fi nga xam ne mooy Siré Siré Diakité bergerie alhamdulilah. ñu kontaanoon lool ci dalal ko fii ñu seet waxtaan wi yaatu comme ni ngeen ko gisee ñuy kontaan vraiment ñu moom référence ci jeunes yi nga xam ne ñoo nekk si élevage yi donc ñu leen di jox dig daje ba